ay jàppante tuke si ñooñu Ousmane Sonko yi ak ñi di waay takk der yi daal di woon na yëngal bu baax a baax lii di réew mi gannaaw ba ñu tegee loxo kii di Ousmane Sonko ñetti fan weeru mars atum 2021 bi ko ndaw si di Adji tuumalee ab sàkku waaye nag boobu lépp tuuma ba fi toll ni da koy weddi ke sa njëkk ñàkk bakkanam si yooyu lépp jàppante mu nga dëkkoon ca bët saalumu réew mi di binjona gannaaw gi ñu ci ay nit ñu si ñàkk seen bakkan daal di nañ koy nemmeeku toll nañ si fukk ak ñett benn at gannaaw gi ñàkk seen bakkan seen dossier ba saa tembe dafa taga tembe amul lañ bët buñ ci def teguñ ci kenn loxo donte le nag kii di njiit réew mi ba yi tare lol ba muy génn di wax ak askan wi la Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. waaye mu melni bileb justice daf ne tek tekkaaral jëmele ci boobule bir dontel nak ay baat jukna na fune ngir rek ñu mëna a ay daan ñi nga xamanteni ni ñoo boom ndaw yu doon dox doxu ñaxtu ci wéru mars atum 2021. exigence nañ leen identifier jàpp leen livrer leen à la justice du àtte leen ñoom ak ñi leen nak ñom ak seen commanditaire. Jorin gi ñu denk walum forces armées di Sidiki Kaba mom daal di won fi biral ne sax dinañu tekk ab commission d'enquête boo xamante ne dafay moom boppam te du fare fenn ngir rek indi ab leeraange jëm si jàppante yi nga xamante ne yëngaloon na bu baax a baax réew mi di Sénégal ci weeru mars bala ñu génn ñoom ñëpp ñu faatu tukkee ci ay balu policier tollu nañ ci fukk ak ñett di doomi Sénégal ci weeru mars atum 2021 boobaak léegi nag amul benn justice buñ ci def tax ñi di kilifa yi war nañu dem seen kéemtalaay kàttan ba may njabootub ñi nga xamante ne ñoo ci boobule jàppante justice ba yoon def liggéeyam waaye tamit fexe ba jox ku nekk ak ak yelleefu doxu ñaxtu fii ci biir réew mi